est exactement 9h20 on se retrouve euh, pour la suite euh, ba léegi rek ñu àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média di leen fàttaliwaat ni tey euh, taw bee tax ñu yéex a commencé bi ñuy ñëw dañoo xuus mais teewul ñu ngi leen di gunge ba tey man ngeen a réagir ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter tout ce qui s'ensuit vos commentaires seront lus dans quelques minutes par Zeyna elle avec vous ci fu ngeen mën ti nekk et puis bu leen fàtte ni mën ngeen a bokk ci yeewu leen bi ci téléphone bi ci 88 628 22 22 normalement numéro bi dinañ ko affiché fii léegi ay minutes ci suufu écran bi alors sànq ànd nañu ak Fatou Kiné dem ci euh, jotaayu xibaari su suba gi ànd nañu itam ak ki nga xame ni moo di euh, barka ba ci lii di euh, café info dañuy jàll léegi nii ci ci topp yi ci topp nag bokk na ci alfi daf ñuy yóbbu d'abord ci marché bi wax ñu njëkk yi fu ñu toll ak marché bi neex naam neexul nawet la ñu nekk est-ce que am nañu ay prix yu baax yoo xamante ni mën nañ cee sukkandiku c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Alfi alors Alfi dis-moi marché bi bëgg naa nga wax ma loo fa fekk. waaw Pape comme euh, dem ñu seeti rayon jën yi ak yàpp yi surtout dañu concentré wu ci légumes yi. rayon jën euh, rayon dem ñu ci rayon ci maanaam fi ñuy jaayee. ok. <laughs> d'accord mais Pape Cheikh marché dafa am rayon jën. ak rayon yàpp ak rayon légumes. Ah, ak fi rayon géej yeeg nefitu yeeg. ñoom rayon yi bëri. déedéet léegi alfi neel taabal rek. mu gën a léegi taabalu taabalu jën ya Pape Cheikh bi fa demee fekkuñu ko. fekk ñu ba jën yu bëri léegi dem nga ci rayon jën dem nañ ci rayon seen tamit Pape Cheikh remarqué nañu ko nii yàpp dafa yokku amul ba amul ba pare dafa dafa cher parce que mhm. kilo yàpp nag bi mi ngi yéeg ba mille mhm. donc moom lañ koy amee mhm. sinon dem nañu xool lépp luy herbe aromatique maanaam ñoom persil ñoom coriandre ñoom euh, poro amuñu uh-huh. dañu manqué ba pare dafa cher ah, benn takk bu tuuti ngay am 100 francs ok parce que yooyu je pense que après nawet bi lay ñëw après nawet bi lay ñëw conseil bu ñuy mën a joxe rek mooy soo amul herbe aromatique yi mën nga jël épices yi maanaam yi ñu yi ñu wowal. Mhm. mën na remplacer herbe aromatique yi. parce que dafay joxe euh, euh, ay jamono am na ay euh, herbe yoo doon saxal fii ci. télé bi bu ñu am na yu ñu commandé. parce que fii yëpp di di di ko toggee. waaw fii yëpp dañ ciy ñëw def ay herbe aromatique nga xamante ne soxlootul sax ñu koy dem jël ci marché bi. dañuy witti rek da bàyyi def ci sa waaw tool bi. sinon Pape Cheikh légumes yi remarqué nañu carotte mi ngi doon ci 900 semaine passée. Mhm. tamit am na amul mm-hmm. parce que tamit moom tam yéeg na ba yegg ay kilo 600. Uh-huh. tomate farci tamit manqué na Pape Cheikh parce que moom tam mi ngi yegg. kilo 800 waaw ñaam fan la toll. jàpp 900 ñaam bi presque. ñaam bi de prix mu wàccul wala ñaam daal daa dafa manqué de. oh là là ñaam ak euh, aubergine. aubergine ah. mooy mooy jaxatu. jaxatu non jaxatu. Uh-huh. mooy batañse batañse waaw waaw mooy aubergine uh-huh. aubergine tam amul sinon remarqué nañ tam jaxato amul Pape Cheikh dafa manqué ah, ah, parce que takk bu tuuti ngay am 300 loo doon am ay 100 francs léegi 300 leen lu koy jaay wala 500 minimum d'accord donc poivron bu verte bi. mi ngi ci kilo 800. kilo 800 couleur yi maanaam bu jaune bi ak bu rouge bi mi ngi ci kilo 2000. donc xam nga loolu cher na. cher kay mais bon après fii Sénégal avantage bu ñuy am mooy saam euh, yi ay saamu 100 francs am na. ay saamu 200 am na. Mm-hmm. donc boo mënul jënd surtout nga am possibilité ay takk yu. Euh, takk yu takk yu seerul. takk yu seerul surtout kaani russi bi nga xamante kilo bi 3000 lay jar dañ la koy defal ci ay sachet yoo xam ne 100 francs lañ la koy jaayee. donc boo jëndee 100 francs wala 200 mën nga ci togg toute une sinon betterave am na fi gis nañ fa radis gis nañu courgette ak pataas donc ñoom tamit am nañu amuñu parce que dafa manqué. du ci rayon yëpp nga koy gis. parce que d'habitude bu légume amee. Mhm. ñiy toog ñëppay am légumes yi mais da ngay gis kii am boo demee ci kële kële du am. donc loolu la ñu remarqué plus remarqué ci ci marché bi. d' accord d' accord kon on peut dire que suppu kanja période bi du neex a togg ndax. Euh, am na parce que jaxato am na kii kanja am na kanja am na d' accord kanja am na jaxato am na. ok xam naa njëg bi moo yokk rek mais am na. jën moom tuuruwul de. jën tuuruwul. Oh, parce que jën jën yu sew moo am am ñoom yufuf. ak ñoom yeboy waaw mooy jën bi niroog yow rek sewe. waaw sewe bu sewe waaw sewe. <laughs> ak ñoom rouge. xam nga ma dama moom tëll lay nirool. ak ñoom rouge <laughs> <laughs> mais bon Pape Cheikh mais par contre semaine prochaine dinañu dem euh, dem spécialement Soumbédioune nga xamante ne du ñu wax ci légumes yi ci jën yi la ñuy dem xool xool yan yan fa variété jën moo am sur le marché ci nawet bi uh-huh. ak njëg bi fan la toll voilà donc merci pour le prix euh, on avait prévu les images pour vous waaye xam naa dañu koy leb euh, reportage boobu dafa taw tawte moo tax Alfi expliqué ko noonu ngeen comprendre ko donc am na yu manqué ak yu manqué wul man li ma jàpp rek mooy ñam bi fi mu toll tembe dafa seer ndax dafa dafa manqué donc mu mu bëri te nit ñi war ko mën a consommer mooy citron vert bi ñu gis ci marché bi nit ñi mën nañ ko di jël Pape Cheikh bu ñuy añ nga dagg ñaar ba ñetti citron def ko sa karaaf citron vert lan mooy citron vert limon limon limon bu ah. verte bi xam nga gis nga dafa tuuru booy añ nga def ci sa karaaf ñaar ba ñett def ci sa ndox ak sa glaçon def ci tuuti euh, essence euh, vanille mu nekk jus Pape Cheikh naturel ah. acide ba pare dafay baax ci digestion boo lekkee ceeb bu niin uh-huh. nga naan citronnade dafay aider pour digérer am na lu am solo lu mu ci lu mu <laughs> période bi citron jaune yi du am. man moom ma jaaxal nekkul nekkul ci période am parce que dañ koy witti. dañ koy gars dañ koy teel a witti ci ni mu vertee lu ñu xaar ba mu jaune. Ah. donc mais soo jëndee lu bëri. citron mhm. nga denc ko ci benn endroit boo xamante ne du wow. Mhm. boo ko fa bàyyee dina dem au fur et à mesure du jaune Pape mais bon nekkul ci période am citron jaune. voilà. <laughs> merci Alfie on te retrouve dans quelques minutes pour li nga xamante ni moom nga ñuy toggal tey muy pâte euh, provençale au thon euh, ay plat yu rapide à faire yooyu lay proposer euh, tey on enchaîne tout de suite.